mbokk yi mu ngi noonu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu indil leen discours bi nga xam ne mooy Serigne Habib si Al Maktoum ci ñaan bi nga xam ne doon nañ ko amal ñetti fanu soxna Safiyatu si bint Serigne Babacar Sy radiyallahu anha fii ci Madina tabarakallah wuri 15 mu teewoon fa nag teewal fa mboolem njabootu Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum waye mën na ne teewal fa itam mbolem rek ñi nga xam ñoy tariqa tidiane bim ko andé ak ay bokkam Serigne Habib si ibnu borom daara ji waye mom jottu fa jël kaddu Serigne Babacar si al amin ñëw na waye jottu fa jël ay kaddu Serigne sid Ahmed si al amin téwon na waye jottu fa jël ay kaddu. Serigne sid Ahmada Jamil téwon na fa waye jottu fa jël ay kaddu. kon nak tabarakallah ci walu njabootu Sey Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum dañuy téwlu rek kaddu Serigne Habib si al Maktoum. ñu joxe li nga xamne moy témoignage ci bàjjanam xaritam soxna safiyatu ci babakar jéglu nak ci li nga xamne moy intégralité bi ndax waxtan na waxtan wam solo wo xamne lamb na lu bare bare bare waye suñu jafe jafe-jafe rek ci walu technique motax mënu ñu leen jox intégralité bi ndax jafe-jafe qualité son su ko défé rek ñu ànd tewlu Serigne Mouhamadul Habib ci ibnu Sayyid Cheikh Ahmed Tidiane ci Al Maktoum السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ah xanaa nu war man ndigalu nijaayu kër gi rek ante moom mënoon na wax yóbbaale ñëpp kër gi itam benn càllala rekk rek waaw dana ko nose comme moom moo amee baatu kilifteef ci jataay bi eh, eh, kàddoom mënoon na ëmb ñëpp أكم بسنيان الكليف صحنا بواني كولا أنا نجال نيب مساو نيب مام دو دو دو خاتل تبارك الله dana ñu faral di waxtaan ci suñu biir ba tudd li dellu ci xajatul widaa bi yonent bi di tàggoo ak gi mu mujj de di tàggoo ñu ni amul dara amul te ba mu joxe message ba muy dem jullit bu ne yóbbaale nga ko ñu teewlu rek xanaa ñaari baat rekk fàttali. itam dana nuy faral di nemmiku jaar-jaar yi sang yi. ni mu ko waxe ci wàllu lawraat ko fonke woon wante ñaar ci bi dafa mel ni caractère boobu ñoko bokk mm-hmm. mu di moom Sayda Safiya bint abi bakr ak soxna zeynab bint abi bakr kooku ñoo ci yemoon dañu daan lijjanti seen charia gis nga soxna zeynab yal na yàlla yokk leeram masala boo ko masalaat ci sa charia mu mu leeralal la ko waaw xam nga dañu wax ni baabu sahwi mooy nisfu من سعدم وحن نصف الدين نصف الشريعة لا يوح نعم وعباب السهوي مي بنت جمود مم لن يوحن موي جنوى الشريعة وعي صحن زينب لوكو تلات مولير لنكو تبارك الله إيه شكرا لك لو لوتي على لو حضر بلا بوك تي على لو كرسي الحاج مالك لبوك تي dañu dégg kilifa mu nettali lu am solo ci benn shaayir bu bindoon benn qasida ci ci buuram bind ko nag di ko yóbbu pour jotal ko ko wante bi mu yegsi ci jëm si ci palais bi bunt bu mu bëgg jaare rekk fekk ay garde taxaw wax ni kenn du mën a dugg ci biir pale bi mani waaw lu tax kenn du mën dugg ne ko waaw ndax buur bi dafa jëndoon benn collier façon ko yéene takkal soxna si te burul invité mi rek duñu bàyyi kenn mu dugg wante bi ñu laajee ndaw si ba ñu wax ko te mu xam ko xolam dafa jeex ba bu mu bindoon ci buur bi mu wëlbati ko wattoo ko ñaari char ñaari vers la ko mujj wattoo wax ni la qad baa chaarin ala babikum kama baa aqdin ala xaalis la mu wayoon buuram yépp ci ñaari baat yooyu la ko wattoo wuy man sama way sànku na man mi way buur bu ko matul waaye itam caq bi itam sànku na moom mu ñuy teg ci loosu ndaw su ko matul moo tax tabaarakallah e boo bokkee ci nono daara moo xam góor nga moo xam jigéen nga nga sonn di di di xuus ci lii tax nga jekku li yenn ndono li mm. farata la mm-hmm. nanu koy def te Serigne Babacar Kane tabarakallah tudd na fi sànq baat bu am solo ci ni li muy doon doon doomu sang taalibe la defoon boppam et je crois que mission boobu ñun ñëpp nanu ko adopté te Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu mais nun nunu fiir Cheikh Ahmad Tijaan yi daan def Chériful Fatimi jékki rek feeñu ko laaj ko ñaari baat mu tontu ko ci lu matul fukki seconde Cheikh dellu waaw ah, nee na dafa jékki rek xelmati ko séen ko rek mun ko almunia waaw ah, Cheikh ni Sëriñ Babacar almunia Sëriñ Babacar si ni ko fii ay chey mun ko fi tariqa mun ko almawtu fiiha cheikh rocc ku dem waaw bas ngeen gis kàddu yu toll noonu ñu waxante ko ci lu matul juróomi seconde waaw ka def na ko lii sa yéene waaw ah, cheikh dafa laaj sëriñ Babacar si ni ko lii sa yéene mun ko ci lu mel lan mun ko ci sunu tariqa mun ko xanaa deec rek waaw su ko defee buntu yaa ngi noonu ñaan yàlla lii ñu tënku teg ko ci mission yonent bi sallallahu alayhi wa teg ko ci tariqa Seyd Cheikh Ahmed Tijani ah ci biir loolu ñu teg ko ci biir ndigalu Seydil Hajj Malik radiallahu taala anhuma e nañu ñaan nu di ci tënku rekk ah, doon ci njaboot doon ci taalibe waaye itam du tere ñu xam li seen mission àndal nu di ko wéyal di ko saxal ah su ko defee ñu jaale ñëpp jaale famille bi yëpp ndax ni mu ko waxee ah sunu mbokk bopp di sunu mag sëñ babacar si di taaw ji sëñ abdoulaziz al amin mu ngi fi ah sëriñ habib di sama jegeñaale tabarakallah di doom ci suñu way jur Serigne Mansour mu cheikhul xalifa ah tabaarakallah mu ngi fii ah taawu kër gi itam mu ngi yegsi waaw di mamaas bu Serigne Moustapha Sy bu taawu Serigne Babacar Sy naa ñu dalal ko ba noppi rek yeggale incha allah